chers internautes euh, ñoo ngi noonu ci seen plateau préféré plateau bi ngeen tàmmu le journal de l'arène comme ni ma koy waxee saa su ne mi ngi noonu plateau bi xam ngeen ni du ma ci wéet du ma ci ànd ak euh, kooku nga xamante ne mooy ndaanaan si biir ndaanaan yi borom làmb ji Babacar mi ngi noonu ah. rahmatulah Babacar borom yu neex yi. <laughs> est melu ma yow. xanaa. ñun dañoo bëri jàmm. a jàmm gën lépp. macha allah jàmm yàlla nañ ko yàlla defal. amiin dégg a Cheikh Amadou Bamba Xaadim Rasul doon na wax ne jàmm. Mm-hmm. moo gën àddina bi nu nekk. Mm-hmm. ëllëg yow ma xiyaam moo fa gën. macha allah te yàlla nañ yàlla defal jàmm suñu émission bii lañ bëgg nga xam ne dañuy du mën a ñàkk xam nga reetaan daa baax. moo gën foofu ñu la fekk rek nga ne foo ñu rek fas sa kanam yooyu bëriwut njëriñ waaw dara du ñëw léppay kale <laughs> kon nañuy ree ñëpp di ree maa ngi lay <laughs> maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmma ah. di leen nuyu yow tamit macha allah di kontaan ci yow asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah jeudi 18 novembre 2021 dañ a ak ci yëglikaay suñu làmb la ñuy xëy doore ko yëglikaay bi nag tey moom boo bëggee dégg-dëgg atum 2011 ba mille vingt 2021 daal la suñu làmb tey xëy toppal ñu ña nga xam ne ñoom la ñuy tudd ay VIP ci làmb yi maanaam mbër yi nga xam ne ñoo nekk ca kaw a kaw a kaw a kaw yëglikaay bi nag topp na leen ci abran kan mooy un kan mooy deux kan mooy trois ba mu soree soree sori boo xoolee nag yëglikaay bi ne na boo xoolee 2011 ba 2021 bu nu jëlee ci ñoom ñooñu VIP Ama Baldé daal moo sànni karawaas jiitu leen lu baree baree bari nekk numéro un ñu ne ko ku ci topp mu ne Balla Gaye numéro deux moo ca topp mook Tafatine ñoom ñoo exiko ci ay résultats yëglikaay bi moo xëy tey ñëw di nu wax lu mel ni ki non mu mel ni ki nag kon quatrième place ba daal Boy Niang la nu fay fekk yëglikaay bi ne tamit bu bëggee dégg dëgg roi des arènes moo fa ne sixième Eumeu Sène septième Lac de Guerre numéro deux bombar Bombardier Gris Bordeaux moo jël neuvième place ba sunu làmb moo xëy tey ñëw di nu wax lu mel ni ki noon ci gëstu boo xam ne daal top na ko ci ñoom VIP yooyu ba ñu dooree ba tey ci atum 2011 ba fii nu koy waxe tey di deux vingt 2021 yëglekaay ba moo xëy andil ñu lu mel ni ki noon bu nu continuer ba tey ci sunu làmb mu nga xëy dinu wax ci combat bi nga xam ne daal ah nar na am dimanche ji nu jëm war a ci diggante Abu Ñaase ma nga xam ne mooy war a lamsaar ak Pape Ndoye may ware Fass Ndakaaru yëglikaay bi tey xëy dalal koo xam ne daal mooy Ahmed Konaté di ab borom xam-xam boo xam ne xam-xamam màcc na ci wàllum lamb Ahmed nag daal la mu gis ne ne Pape Ndoye day li ko war mooy jéema a ci biléb komba waaye abu Niass itam la ko war rek mooy gën a moom tamit avancé ca aw yoonam yëglikaay bi moo xëy tey ñëw andil ñu boobu combat beneen soog boo xam ne moom le 19 décembre lay am muy tafaatin Boy Niang yëglikaay bi daal xëy na tey dikkal ñu ci boobu soog ak itam la ca war a mën a xew ak na ma war a mën a doxe ñaari mbër yi ginnaaw géant wu Bawol ba daal ba mu passé fa nga xam ne nii moom mooy ay mbiram daal ci wàllum ring back dóor yi booy ñang numéro de moom tamit dem fu mel ni France daal augmenté fa lu jëm ci wàllum làmbam ak bëreem mu mel ni kon daal bu bëggee dëgg-dëgg daal yokku nañ ñoom ñaari ñëpp ku ci ne ca la nga xam ne moo lay xaar bu ma fa jógee dañuy continuer ba tey ci biir yëglikaay bi dikkal nañ ci beneen xale boo xam ne sàkku xam-xam la ne ca Père Birahim Ndiaye ñu koy wax Boy Diop nee daal pare na ngir bëri ak bébé julde wala booy sëy numéro deux yëglikaay bi moo xëy tey dalal ko kenn koo xam ne ni moom li mu des daa jar a wax muy ordinateur bu ñaaxar di bëri ci simple bi yëglikaay bi ne nag nan ko bàyyi xel ndax nag moom ordinateur nekk na champion du Sénégal ñu ne déet ne waaye fa lay yem mu nekk champion wu CEDEAO moom ordinateur moo tax nag moom ordinateur ci boppam waxal na boppam nee na ñoom ñii nga xam ne wala moom mi nga xam ne ñu ngi ci lit avec noo lamb ñi nga xam ne amul dóor dañoo am bu baax a baax ci lamb bi daqe su leen a bëre manee su leen te xoromit nag kenn ëpplewu leen ko moom ordinateur daal tey gis-gis boobu la am kenn koo xam ne nii moom bes ko waxee bes ko waxul record xamal nañu ne daal bokk na tey ci promoteur yi nga xam ne bàyyi nañ ko xel tey itam nag bokk na ci promoteur yoo xam ne ay mbiram boo xoolee ba ca biir ci yoon la koy teg tey itam ay journée day neex lool muy Fallou Ndiaye yëglikaay bi ne na maanaam top quatre promoteur yi daal Fallou mu nga ca biir Fallou nag la ko waral yëglikaay bi ne boo xoolee làmb yoo moo organisé day neex làmb ya nit ñi dañuy ñëw tey itam la muy dajale daa mel ni xam na ko Fallou nag nee na loola la ko ko lenn kese la staff bi mu yor maanaam muy waa Ndiaye production ñoo ànd di bokk di xalaat di nasandoo di noccendoo Fallou loolu la wax ne na itam nag fi mu nekk nii xalaatu da dem ci benn sponsor di ko yalwaan nga di ko ñàkkal fayda di ko jox ay trois cent ak i deux cent mille faal bu dee loolu la moom maanaam du dem ci kenn ne na daal moom fulla ak fayda dong la fas yéene doxe ci làmb ji moo tax tay bu fekkente ne yegg si na ci niveau bi mu yegg si mu nekk ci tey ne itam nee na moom fàllu daal fas yéene wàcc woowu yoon mu mel ni kon daal soo bëggee dégg daal Habib fulla mooy jaay Dakar wala ma ñam jeexal ko kon fàllu loolu la wax kon daal Fallou Ndiaye tey loolu la xëyee tey borom Ndiaye production. mi ngi noonu Babacar euh, seetaan nañu loolu nga xamante ne mooy yëglekaay yi tey daal euh, suñu làmb. dañoo xëyee loolu nga xamante ne mooy les VIP de l'arène. xam nga mhm. doon VIP dafa neex. bien sûr ak am solo. ak am solo. VIP dafa neex ci lépp nag. dafa neex si si si lépp loo nekk rek ñu ràññee la ci. Mhm. ba nommé la loolu nga xamante ne mooy. VIP loolu c'est c'est quelque chose c'est un honneur la quoi ci li ci ki ko am. yombul nag des koy ñàkkante ba am. mi ngi noonu day ñàkk lool def nii pour nga yor caa jot. liggéey la laaj. voilà bu métti sax. travail nee nañ de de 2011. à 2021. Mm-hmm. Mm-hmm. meilleur lutteur chez les VIP. Mm-hmm. nommé nañ ci kooku nga xamante ne mooy Ama Baldé première. daal ci kooku di Balla Gaye 2 et Tapha Tine ci en deuxième position. ñu ne Modou Lo en cinquième position. Gris Bordeaux en neuvième position. Euh, kooku di Boy daal moom daal nee dem ñëw na ci quatrième position. Mhm. kooku di Eumeu Sène ñëw si sixième position. Mhm. kooku di Lac de Guiers ñëw mhm. en septième position. et enfin nous avons Bombardier en huitième position. waaw bon boo xoolee yëglikaay bi dafa topp ñoom VIP yooyu nga xam ne ñoom ñooy les VIP de l'arène. depuis 2011 2021 xam nga boo ko xoolee yaakaar naa fukki at la 10 ans. maanaam la xool parcours yi ñu def. boo xoolee nag ni mu ko jàngate mhm. Ama moom mooy numéro un par rapport ak combat yi nga xam ne jongante na ko fi mhm. waaw parce que euh, yaakaar naa ne li mu fi jongante boo ubbee journal bi fii li mhm. nga gis li nga xam ne moom la Ama Baldé li li tax yëglikaay bi jël Ama def ko numéro un waaw defe naa boo xoolee mu ngi nii dafa laay Baldé baa ngi nii boo xoolee depuis mu déparé ci 2011 ba tey ah ba fi ñu koy wax nii boo xoolee daan na fi guy gi am na fi ay victoire yu baree baree bari daan na fi Malick Niang ñoom ama neex xam nga daan fi ay mbër yu bare baree baree bari ñëw ba daan fi ma mujj daan Papa Sow yaa ngi dégg dugg daan fi tafaatin ah bëri ay victoire yu mu am xëy na buy am defet ci at entre 2011 ba 2021 benn defet la woon mooy bi ko guy gi jotoon daan yaa ngi dégg Euh, kon ça veut dire que moo lay wan ne bon loolu moo tax ñu ne ko yow yaay numéro un yaa ngi dégg ñaar ñi ko nag mooy Tafatine ak Balla Gaye mhm. loolu na ko yëglikaay bi jàngate mhm. loolu nag li muy wane mooy ñoom ñëpp rek dañuy liggéey parce que tamit làmb dafa metti te Ama itam li tey bu amee ci moom en tant que xale mhm. ça veut dire que ah, xale la boo xam ne itam vraiment mu ngi liggéey te li muy liggéey bàyyi na ko xel te jox na ko cër bu baax a baax. la première place ah waaw non non bien euh, da ko da ko non non lu mu liggéey la. macha allah donc. ngàcce ak kooku nga xamante ne mooy Ama Baldé. Ah. ainsi que tous les autres. bien sûr tous les autres parce que un jour. Mhm. ñoom tamit mën que parce que boo xoolee ci côté résultat nag la ñuy waxee. Mhm. wax foofu la yëglekaay bi jàngate il faut que la ñuy nit ñi bàyyi ci xel maanaam résultat yi ñu def entre 2011 ba 2021 mhm. loolu la topp ñoom ñooñu ñëpp les VIP tous les VIP dajale ko bi mu xoolee nag ba génnee seen ndam seen ay défaite Ama moo ci jiitu par rapport ak ndam yi mu am te boo xoolee su ma benn défaite la ci enregistré des yëpp ay victoire la loolu moo tax ñu ne ko mooy numéro un ñi ci topp topp ci muy Balla Gaye muy euh, ki nga xam ne moom mooy euh, euh, Tapha Tine ba mu ñëw ba ci Gris Bordeaux moom mooy neuvième ça veut dire que loolu moo lay wane ñoom ñëpp ñu ngi liggéey mais terewul tey Ama Baldé loolu taxawul pourtant taxawul sax mu amagu li mu bëgg parce que li tax amagu ko mooy roi des arènes la soxla te mu ngi koy xëccoo ak Modou incha allah su ko jigee yal na ko yàlla may. Mhm. mi ngi noonu euh, parce que ah. nit ki. waaw looy wut euh, looy ut rek na ñaan yàlla mu doon lu la ji. amatulaay mbaa da faral ama non ci yooyu bul dugg ci yooyu. <laughs> Ah. man ñëpp laa faral. Ah. <laughs> ñëpp laa faral Sénégal laa faral. kon daal que le meilleur ñoom ñaar. que le meilleur am na solo Ramatoulaye nee na kon ama yak Modou que le meilleur gagne. am na solo voilà euh, bu su ko defee ñu daal di jàll ci kër nga xamante ne mooy Ahmed Konaté. Mhm. nee nañ euh, sur le choc du 21 novembre. Mhm. Pape Ndoye se racheté. Mhm. Abou Niassé lavé son honneur. ça dire boo ma ko teqaloon ci wolof wala ñu lay seetaan. Euh, Pape Ndoye pour racheter de defe naa mooy jéem a jógaat. jógaat ah. Abou son honneur. waaw xam naa kon moom itam fexe. Mhm. honoram mhm. nu mu ko gën a nu mu ko gën a yokkee. parce que euh, jógewul ci defet moom abu. waaw Pape Ndoye nag ci defet la jóge moom soog boobu kon jàppal ne dimanche nañ ko Ahmed Konaté waxee rek ñoom ñaar ku ci nekk rek mhm. am na lu lay xaar ci bés ba am na foo jógee am na foo bëgg dem. li leen ci koy may nag mooy dimanche bu arbitre soufflé ba ñu tàqali ko. ba euh, jël la am dinañ xam ñoom ñaar ku ci ne fa nga jëm waaye daal ay xale a jamaïcain boole. ñu ciy wax mention spéciale à jamaïcain. parce que tamit ndaw la jël ay ndaw ni moom fay leen xaalis tëgg leen vraiment mérite am na mérite quoi moom jamaïcain mais ñaari mbir yi daal dimanche dinañ gis combat bu neex incha allah rabbi dimanche bi ah incha allah rabbi incha allah mhm. ñu koy xaar euh, ak doole mhm. euh, fii daal nee nañu choc de gladiateur du 19 décembre mhm. euh, Tapha Tine et Boy Niang de précédent découvrir waaw ñoom ñaar daal loo ci mën a dégg Euh, waaw pressé nañu pour pour pour laale ñoom ñaar parce que boo déggee seen ay kàddu mhm. moo lay wan ne ku ci ne yàkkamte nga arbitre soufflé mhm. waaye nag loolu li ko waral mooy dañoo pare mhm. maanaam mbir bu entraîné ba yëg boppam ba xam ne moom léppam pare na la muy gis rek mooy bés jot arbitre soufflé mu jàkkaarloog adversaire am defante moo tax euh, combat euh, Boy Niang ak Tapha Tine bi ah Ramatoulaye waaw Boy Niang mu ngi woon France ci yënguti woon ci wàllum gën a yokk lit piit bi ak box beeg yooyu mhm. tafaatin tamit mu ngi woon fii mhm. yaakaar naa ci dëkk bi fii newoon ci ring yi mhm. ak ci li nga xam ne nii moom mooy fi nga yaakaar ne boo fa liggéey di am ndam nekkoon nga foofu di fa liggéey ñu bàyyi rek ba le 19 décembre ba xam fu wane di mujjee ki bëtam nañ ko fekkee te tal ko yàlla nañ rabbi euh, yaa Boy Diop sakku xam-xam fréquente bébé Julde waaw waaw saako xam-xam écrit la bu nekk euh, parcelle. Mhm. lu xam nga parcelle bu baax. Mm, voilà mhm. euh, foofu la nekk Père Birame Ndiaye moom moo ko sos yàlla na fi yàgg te wér suñu papa jooju ñu ko di ko ziar. Mhm. booy jóob ci écritam la ne moom nag comme loolu mu wax am na si droit parce que mbër moom ah nee na pare na pour bébé Diouldé pare na pour Boy Seye numéro 2. ah ñooñu tamit ñu ngi koy dégg te ñooñu ñëpp ay morom lañu. c'est ay génération lañu xëy na ëppante tur wala rawante tur dina ñoom ñëpp war nañu mën a jaxasoo bëre. ku mel ni bébé Diouldé mu ngi ci ay defet yu mu teglante. defe naa tey moog Boy Diop mi war nañu war a mën a bëre. ñaari booy. Euh, wala boog waaw bébé julde di moins. moog booy moog booy moog booy say tamit kon moom laay wax ñaari booy boobu tamit ba tey lu war a mën a nekk la rek. mais nag promoteur yaa ngi dégg ñoom xam nañ li jaaru xam nañ li ñu war a boole. mais noonu la petit à petit l'oiseau fait son bien sûr dara bu nemee noonu sax kenn doo ko jëriñoo bu baax. ci. boo lépp loo xamante ne da nga ci euh, da nga ko amee ak facilité yàlla nañ si yàlla musal facilité kay wóorul sax daa wóoru day sonn doog a jariñ surtout njariñam ci ginnaaw coono mu ngi noonu mm. euh, champion du Sénégal et de la CEDEAO en lutte simple. Mm-hmm. ordinateur on euh, on a boo ko déggee nag machine la bi ñuy defee nii defe na. man daal loolu laa ci mais kii nag mbër machine boobu la tuddee boppam. ordinateur ndax dafa mën a bëri bien sûr c' est extraordinaire ordinateur noonu nga ko waxee noonu la demee mbër bu mën a bëri macha allah ah. nekk ci lutte avec frappe bi parce que loolu moo ko may mu nekk champion ah. de la CEDEAO yaa ngi dégg ci li Afrique bokkoon ñi nekk soonu CEDEAO bi mhm. ñu mu jël médaille d'or comme mhm. ça veut dire que loolu mu wax ne am na am nañ seen place ci lutte avec frappe bi c' normal loolu moo ama ah. parce que tey boo leen joxee combat lutte avec frappe ñoom ñooñu pour ñu daan leen day jafe mhm. kon yaakaar naa ne moom vraiment mbër la bu nga xam ne doomu ñaaxar boobu mu ngi ci yoon a ah, te na dina am combat la foog dinañ ko jox combat qu'il bien sûr waaw parce que xam naa daal ay kele yu garaaw lay bëree d'accord boo seetaanoon bëree di nga xam ne mbër bu bëri bagage la ci côté bëri mm-hmm. dafa dafa bëri ay bien ah non non loolu ah loolu moo tax mu ñu tudde ordinateur mi ngi noonu mm-hmm. macha allah mi ngi noonu MMA mm-hmm. euh, euh, Pika et 2 Giga waaw euh, en France il affronte

2 Ziga mbër la mu ñu xam fii Sénégal muy bëre waaye ñu ngi ci daa dugg ci MMA bi mhm. ñoom ñaar nag ñoom ñoo war a wàcc bëree mhm. waaw ak ki nga xam ne nii moom mooy Al Biekov mhm. ak Desalalov yàlla na sénégalais yi am ndam ndax man Desalalov ak Al Biekov moom mu xawma leen sax waaw waaye daal Sénégal daa neex nag réew mi yàlla am ndam amin waaye <laughs> loolu nëpp ñu ah, loolooy am sax incha allah <laughs> euh, Mm-hmm. Fallou Ndiaye dans le waaw Fallou Ndiaye promoteur bi nga xam ne yaakaar naa ne sànq bi may jeex revue maa ngi koy wax. Mm-hmm. parce que par rapport ak tey bi mu ñëwee ci lamb mm-hmm. yàggul et puis Fallou Ndiaye xale la. mais macha allah ni mu ñëwee ci làmb. ñëw na ci di organiser ay événements yoo xam ne vraiment saa yu ko organiser stade bu mu ko organiser moo xam Iba maar la moo xam arène nationale la day fees dell. parce que li muy boole xam na ko parce que loolu li ko dafa am staff dafa am ñu compose équipe bu Njaay production mhm. loolu moo tax xëy na moo am rang bi mu am ci promoteurs yi parce que tey mën naa la wax ne wax dëgg yàlla tey promoteurs yi nga xam ne tey ñu ngi dundal làmb marqué seen empreinte actuellement di ci def lu doy waar mhm. boo ñuy cité moom day bokk ci biir loo boobu mhm. te loolu tamit li ko ko may mooy liggéey am équipe boo xam ne da waxtaan ak ñoom ngeen cër parce dafay am solo parce que waxtaan ne nañ mooy euh, euh, gara garabu réeroo. dëgg la ah simmiñal waxtaan moo koy gor. Mhm. ba mu daanu. solution. am moom xam naa nag loolu moom da koy def parce que équipe bi xam naa ñi fa nekk. Mhm. ay ñoom Tafa Mbeng ay ñoom Fallou El Capo. Mhm. ay Amdi Moustapha ñoom Mor bari nañ. ñoom ñoo composé équipe bu Ndiaye production ak nit yoo xam ne tey ñu ngi ci biir. bu ngeen dee waxtaan te ñoo nekk ñi ci làmb di dund làmb. mooy tax ba boo tëggee. événement bi ah, làmb ji day neex mais bu tëggee sax bu dee xale sax du ñu mbër yu am niveau ba Gaye wala Modou Lo du tere bu ko defee mm-hmm. wax dëgg yàlla ndax ku ne gis na bër ki dem Ada Fass dafa am mbër Voilà Babacar mu ngi noonu c'est avec un immense plaisir que mm-hmm. nous parlons de lamb mm-hmm. encore une fois de plus dafa doon euh, sport boo xamante ne c'est très noble Sénégal mm-hmm. moom la ñu xam et puis euh, dañ koy tiitaroo daal bien sûr mais Babacar j'aimerais ñu ñëw ci benn parenthèse bu ndaw ñu génn ci lamb ñu ñu lancer benn message bu ndaw parce que temps yi daal euh, gis nañ ni violence bi bëri na ci dëkk bi xale jigéen yi ils plus en sécurité da ngay génn bay jël bi sax nga tiit am ko jóge sa ginnaaw am nu mu def ak yow gis nañu violence yi bëri na xale jigéen yi tey cas bi tey cas bi bon message ngay lancé tey à notre euh, suñu public ba ñu xam ni ñu ñu sensibiliser leen en quelque sorte. waaw loolu daal lenn la rek sama gis-gis ah mooy maanaam nit da koy jéem a xam ne nit nga. bari jikkoy bañ a yore jikkoy mala. ndax boo rulee koy mala boo rulee koy mala lu bari di nga ko rusa def di nga ko jomba def nit day am jomb jomb day am lu muy rus nit day am lu muy bañ loolu su nekkee ci yow ñu yar la ci nga di ko dund xalaatoo mukk seen rama romb la yor saakam bu saak ba defoon ne million nga di ko laal parce que dangay ngay xam ne lii moomu ma ko loolu nag ngor a koy may nit jomb jomb moo koy may nit bëgg gëm sa bopp a koy may nit yaa ngi dégg parce que bu fekkente ne góor nga war nga mën a dem nga ñafe ji ñàkkante ji boo xëyee am 1000 francs sax mu lew la nga tëdd ci jàpp sa njàmbur yaa ngi dégg mais defe naa di agressé ay nit moo xam góor la wala jigéen pour man ku dem ba agression desale ci àddina pour man yow loo fiy defati loolu du solution du solution donte état bi xëy na dañ leen di gën a soñ tamit ci liggéeyu ndaw ñi ñu gën ci bàyyi xel parce que nit ñi tamit bu ñu jàngee ba am ay diplôme wala ñu def ba am naa nga war nañu fexe fu ñu leen dugal pour ñu am dara waaye nag ñàkk liggéey man duma ko ko layale mu war a tax nit kii di agressé déedéet wala muy jël lu mu moomul d'accord ma ci loolu mm-hmm. yaa ngi dégg bi ci des mooy kantaal euh, li may gis ci ay yi may gis fan yi di ko dégg ay nit góor yoo xam dañuy sëy ak jigéen ba benn moment jafe-jafe am ba ci faat ku jigéen ki wala faat seen ay doom yooyu yëpp defe naa ne itam li ma lax lekk lay fa nekkul rek ngoro fa nekkul rek jomb jomb fa nekkul rek man de man man de man de la gis nga ñaar gis nga ay góor ak jigéen bu ñu dee sëy gis góor dafa war a xam ne sax moom mooy sëy man loolu laa jàpp yow yaa war a sëy jigéen yow yaa ko war a muñal yaa ko war a yërëm yaa ko war a yaatal même ci ay juum-juumam yi muy def yow amal auteur wu man ko seere mm-hmm. yow góor gi war nga mën a amee mm-hmm. dignité auteur bu nga xam di nga ko mën a tiim ba mm-hmm. erreur bu mu mën a def lu mu monumental monumental nga am dal war ko man a wax ak moom ci ngor parce que tey ramatulaay boo defee yenn yi ma xam ne def nga ko ba ma teg ci sama bët mu bu fekkonte ne tey damay sa borom kër wallaay la si ma ñëw fekk nga jégal ma dañu may satan nañ ma jégal moo ñëw fekk la nga nekk ak beneen góor bu dul man ma teg ma yem ci non man damay fe man du ñëpp nag waaye man de bu keroog dinaa jéem a def le tout ba seen teg suma xol bàyyi ba ba mbir ma passé ma woola wax ak yow ci ruq déglu la ba xam parce que nit ki bu ñu waxee moom waxi gor xanaa wax ji dina dem si dara tam bu dee gor la dina soppeeku boo mënta soppeeku nag ah ñu ñaanalante yàlla moo ñu digaloon sëy waaye nañu tamit tas dagan na gënalu ko nag mhm. bu sañoon tas du am waaye waaye nag tas moo gën rey mhm. ndax bakkan yàlla moo ko war a faat mhm. kon yërmande moo fi moom laa gis ne dafa xaw a manqué yar dafa xaw a manqué yooy yëpp dañ ci war a bàyyi xel aussitôt tamit ñuy wax suñ mbokki jigéen ñi doom yi leen yàlla may ci biir néegu sëy nañ koy nampal ak seen ween meew mi leen yàlla jox loolu day am loolu dara lay def ci nit waaye tamit jël meew yoo xam ne xamu fu meew mi jógee nga di ko jox nit kooku lu ne mën na ko def ah nan waxante dëgg loolu loolu dafa jar a xel ay biberon yu kenn xamul. boobu noonu nga xamante ne mooy seen cas. ah waaw man daal foofu laa leen di yóbbu. du doy waar la de suivre euh, seen euh, émission boobu noonu nga xamante ne mooy seen cas. am na solo Equivox dem leen seetaan ko démb rek waxtaan nañ fi si sujet boo xamante ne Babacar. am na solo c'est tellement touchant. koo xamante ne am nga sensibilité boo fi toogee boo toogee jël sa téléphone concentré wu seetaan émission boobu noonu dina am lu génn. man de man de yàlla may na ma ay soxna foofu laay jeexal ak yow. waaye façon bi in ci kattanu yàlla du ma dóor du saaga du ma ne la xaw ma du ma la maa tey te lu ma am dañ ko bokk barke alxuraan loolu laa gëm te loolu laay billaay wallaay taala ah, man Babacar loolu moom ma ah, di nuyu ñëpp di bëgg ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm waaw kontaan nañ xam naa ni temps bi dab nañu ah am nañu nekk si ginnaaw dañu def ay yooyu noonu mais da ceeg bokk aussi mhm. day tax ba public bi ñu bàyyi xel bu baax parce qu'on n'est pas là juste pour parler de combat peut parce que mais aussi dañuy sensibiliser ñoom nga xamante ne. am na solo rahmatulahi. suñuy suñuy internautes. Mhm. mi ngi noonu fii la ñuy yem ak yéen tey euh, et puis on se dit à très bientôt non demain. incha allah incha allah suba <laughs> le vendredi jour bu sell bi. waaw. mi ngi noonu. à demain à demain. bye bye. ma ma <laughs> ma rahmatulahi. andi sa loxo. non pas pas non man loxo droite laa la jox de. ok d'accord voilà. <laughs> Attention Jackson. D'accord.